wala ngay am jàmm wala ngay wëllëre euh, ci bis bi nga xamee ni soppay Sénégal yëpp sax laay wax Oustaz Modou woote na ko tey teew nga fi fii ci këram ci yëmbal muy bis boo xam ne nag bisu sant yàlla la waaye bis la boo xam ne ni bisu delloo njukkal la moom laa ko mën a tuddee ndax képp kuy am ni jàmm rek teewal na ci bis bi nga xam ne message boobu faa ko doon sant yàlla ci gan gi nga xam ne yàlla may na ko ko muy taawal bu jigéen di li waral mboolem si gi nga xamee ne nag yaa oustaz yàgg nañu ak yow wax dëgg yàlla bi ñu la xamee ba léegi lépp looy def lu ne nga ñu ciy boole di li waral ci sama tur mboolem sirbe bi nekk ci Sénégal yëpp ñu ngi lay jaajëfal di la ndokkeel tamit bu baax a baax ci gan gi nga xamee ne yàlla may na ko di la ziar di la ñaanal yàlla xel bi dund te jërëjëf Thiongane maa ngi lay nuyu waaye ci sa tur ma nuyu mbooleem site internet boo xam ne ñëw nga fi ndax xam ni yëf yi seen yëf la fa tabaarakallaahu ak seen taxawaay ndax ñun suñu image tey fu mu àgg rek site internet yi dafa am lu mu gisee kon loolu nag danañ leen ci gërëm ñaanal leen yàlla ci seen teewaay bëgg ñaan yàlla yàlla leen yàlla gën a taxaw. ci daraje Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. macha allah yow Oustaz xam naa ku teewoon ci gis bi lan mooy secret euh, Oustaz Modou Fall mu ànd ak wuysi bi nga xamee ni képp ku xam ci réew mi teew na. jërëjëf Thiongaan waaw wuysi bi du si waxoon ne du ko xeebal ñett du ko xeebal bisam du ko xeebal soxlaam. kenn du ko xeebal sëriñam xëy na loolu la ñu xam rek ba xeebal lu nu ma bis bi nga xam ne moom laa am te tey nag bis bi dafa bokk ci bis yi ma gën a fonk moo tax ku ma fi gis damay gëm damay gëm fonk na fi gis damay xam ne kii yëg na ma ndax nit amul lu dul bisam ma gërëm leen ci képp koo xam ne teew nga fi waaye itam ñaanal la yàlla bu baax tànk yi nga pëndal ba agsi fii ku ne xam na dëkkuwaay bi xat na mbedd yi xat na waaye nag teewul tabaarakallahu li ñuy xam ne yëmbal xat xat na yëpp teewul ñëw nañu ndax yàlla ak pas-pas ndax yàllaak suñu diggante ak ñoom kon nag ñu gërëm leen ci loolu sant leen ci waaye itam ñaan yàlla sama diggante ak ñoom yàlla bu ci seytaane am yoon. macha allah alors mën naa wax ni euh, groupe Futurs Médias fu ñu jugee wuti wala dox tànki farata rek xam na ni ki ñuy demal ñor na leen euh, sa complicité ak groupe Futurs Médias ba ba nga xamee ni kenn desu fa booba tamit yaakaar naa bu tewee bari na lu mën a symbolose lan nga ñu mën a wax. sama diggante ak ñoom nag day diggante bu rafet. muy ñama fa fekk muy kilifa ya fa nekk man TFM aw ma fa kenn xaar ma yàlla néew ma ku nekk TFM te siquma ak yow ay kaf segam oustaz yi ma waroon a maanaam ñi ñi rivalité waroon a dox sama diggante ak ñoom nga xam ne maa ngi ñoom a bokk métier segam ñoom laa siqal jàmm sàkkantuma laa ku ma bokkal may def ku ne xam na sama digganteeg Oustaz Pape Hann ku ne xam na sama digganteeg Oustaz Assane Seck yéen ñi di lire sama stat yi gis ngeen ni ma sonalee Assane fu ma ko fekk maa ngi koy film maa ngi koy tooñ maa ngi koy yàq lu ma neex muy sama xarit yenn saa yi ma dem ci dëkk ñu ne ma an sa doom bàjjen ma ñu leen kan ñu ne Assane ndax sonal gi ko sonal yenn saa yi nit yëkkati teraanga dama boo demee joxal ma asan ma am sañ-sañu bañ ko koo jox su ma ñëwee ni ko yóbbante nañ ma ma lekk ko loolu bu diggante bi rek taxul woon jàmm amul ci suñu diggante loolu du am télévision Futurs Médias nag li may faral di wax ni bi may ñëw TFM su fekkee fukk laa woon bi ma ñëwee TFM TFM daf maa yóbbu cent te loolu dama leen koy nangul di ko seede fu ma toog ndax bari na fu ñuy dem ñu naan ñu dañ lay seetaan TFM te loolu sag boobu amee yàlla ak TFM la amuñu seen fay li tàmbalee ca directeur ba Youssou Ndour Birane Ndour Ndiaga Ndour Bouba Ndour ñoom ñëpp tey ku ne gis nga ko fi li ko waral mooy sama digganteeg ñoom relation yu rafet laa am ak ñoom awma ci kenn xaar ma yàlla ñu respecté ma itam ma respecté leen ku ne xam na ne ku nekk ay ñu woo ma émission urgent ne ma ah samedi bii kat war ngaa ñëw kàkkatar wala war ngaa ñëw émission sàngam ma a ah buuba nekkuma fi de ma ne mais oustaz ma ne ko buuba kii da kii rek mais tuwéewul day am compréhension boobu teguñu ñu pression yaatal nan ñu ubbil nan ñu seen bopp buuba daf ñuy tooñ ci koor gi maak Assane Seck ak Pape An ne ñu dangeen ngeen a sonn bu bu koor gi jeexee dama leen di yóbbu ci hôtel boo xam ne ah, dafa am piscine mais nag yéen ñëpp kiloot ngeen di sol sinon duñ ko def ma ni ko d'accord naa Assane ni ko d'accord naa Pape An ni ko d'accord naa ñun dañoo nekk benn jubóo di tooñante amuñu pression ku ne jox sa morom cër ku ci xewle ñëpp teew relation boobu moom la am ak moom. alors mu nekk loo xam ne c'est un peu parce que mën naa wax ni euh, xëy na bokk nga ci ñi fa gën a nekk xele euh, suñuy mag euh, ñoom Oustaz Papa An nekk fa ñoom Oustaz Sane Seck terewul wax ko a bokk mag ñi je pense que seen teewaay aussi mën na mën wane loolu. waaw parce que ñoom respect laa leen jox ak cër te tànkam lu ma ci kenn nag ku ci xewle lu ma jàpp dama koy bàyyi ñëw. man itam su ma xewlee ñoom luñ bàcc luñ jàpp dañ koy bàyyi ñëw bi ma ñëwee fi TFM ñoom laa fekk su leen neexoon ñu fasal ma kanam wala ñu may siis wala ñuy def yi sew ndax ku ne xam na ni kanam du kaso waaye boo ko tëjal mu xam ko waaye bi ma ñëwee TFM fekk leen fa dañ maa yaatal ñoom ñoo ma dalal Assane Seck moo ma dalal TFM ak Oustaz Pape Hann ñoom laa fekk waaye bi ma ñëwee dañ maa yaatal dalal ma teg ma ca kaw ma nekk seen rakk luñ war def sax ñaare dañ ma naan doxalal Assane Seck mi damay faral di dégg muy wax wax bu am solo day faral di wax ni li nga mën ci communiquer ak ndaw ñi ci xarale Facebook ak WhatsApp ak Instagram yow la ko yàlla cëral te dañ la ko nangul te loolu bu soxor nekkoon ci xolam du ko wax ñoom ñëpp relation boobu laa am ak ñoom may seen rakk nag yaatal ma ba tey ma ñëw am cër bi ma am ci télévision bi. alors mu surprise bi Papa Cheikh Diallo annoncé euh, xëy na oustaz ngénte li la ñu bari man personnellement ñu ma di ma mais li xale yi nga def si code c'est vrai que bi ñëpp déggee ni euh, oustaz euh, Modou Fall dafay ngénte daanaka gars yi choqué nañ doon xalaat soxna si nekkoon nag yu demee noonu. mais xam nga moom ku ne xam na ni ruube moom hmm. moo ko dàq ci àdduna bi. moom lépp lu toq ci boppam du la ko wax day bàyyi ba ba émission bi tàmbali mu dóor la ko looloo waral xëy na ñu bari ci moom lañ ko yëgee waaye it muy sama xarit di sama soppe li lay wan ni lu kenn yëgagul moom bu ma yégee lañ cay jàngatee mooy sori nañ man ak moom lu ma nekk da koy xam lu mu nekk dama koy xam nëbbu ma daraam man tam nëbbu ma ko sama dara ñu am complicité bu rëy sama diggante ak moom yàlla def ñu bokk benn émission man ak moom muy Midi Plus yàlla def ci lim ci def adduna bi yëpp bëgg ko du jàmbaaram du sama njàmbaar njàmbaaru yàlla euh, muy sama xarit looloo waral bi mu ko annoncé rek ñu ci bëree bëri nag wax dëgg yàlla foofu lañ ko yëgee. code bi code bi nga def ci soxna si ñu bëri ah, na soxna ko soxna bi demee noonu code bi nga soxna si ba kenn xamul woon ndax oustaz vous étiez marié wala loolu lu ko waral xam maa man damaa mën a tooñ yéen saa nga dégg ma naan gars yi takk leen ñaareel takk leen jabar ñaareel nangam ta benn laa am bi may classe célibataire yi dëgg dëgg dëgg boobu amaguma soxna mais kenn du ko xam xam nga nag boo naan nit ñi takkal jabar kenn du xalaat ci xelam naan waaw kii naan takk leen jabar moom moom moom am na amul jabar loolu nag dama ko daan faral di def yéen ma tooñ mel ni ko yor ñaari soxna te benn laa yor xam nga mais réew mi day réew moo xamante ni bii ay nit ñu baax ñoo fi nekk tey am na koo xam ne bu doon xaar nga woo ko téléphone pour inviter ko du ñëw mais dañoo am compréhension xam nañ ni kii li mu yanu ak li nekk ci bopp bi ak correction bi mu am te mës ta xew xaw ma xew parce que mosumaa xew à part bi may takk soxna correction boobu nekk ci sama bopp bi ma tukki démb trois heures du matin laa wàcc aéroport maa ngi woon Allemagne une semaine amoon fa conférence correction boobu nekk ci man bi ma wàccee sama téléphone maa ngi ci fekk àddunay message ki war a indi chaise yi ñëwagul ki war a baas ñëwagul borom nag bi ñu ngi koy woo jotuñu ko production boobu nekk ci sama bopp waaye teewul nit ñi am nañ compréhension boobu may ndokkeel ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal yàlla ñëpp jàmm. très bien alors ñu bari ñu ngi doon xalaat xëy na oustaz Modou Fall soxnaam célébrité lay nekk tooñ nañ la fi ak yaa awa tooñ la fi ak keneen ak keneen célébrité yi yaa ah, xol bi moom buy recherche. Ah. day recherche rek ba gis ki mu nopp yàlla dogal ki ma nopp moom du célébrité wax dëgg yàlla waaye nag euh, sant yàlla ndax bi mu ñëwee am na taxawaay man damay faral di wax ne sama soxna pour gërëm ndax dafa baax te jik gisuma xam nga man ñëpp xam na ni liñ naan sañ wax man sañ wax laa sama jabar nee naa ko boo meloon neneen sa bis bii buñ lay gërëm damay ñëw taxaw ci digg bi li ngeen koy waxal du dëgg de mais billahi lazi la ilaha illa huwa ku dee ak sa bàmmeel su ma wóoroon ni bu ma takkee jabar suba suba mu mel ni moom ma takk jabar muy deux heures muy deux femmes maa xam baaxam xam bi mu am ci man xam compréhension bi mu am te congaan imaginer ngay sëy ak nit te semaine boo toog boo duggee Facebook dégg ñu ne day génn ak diw wala takk na diw mais dafa metti ci jigéen ak jigéen ni ko yàlla mayee mu am xol bu oyof mais teewul daf koy muñ lu baax leeg lu bon leeg lu ci ne daf koy supporté kon ku mel noonu nag danaa ko gërëm danaa ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla yokk dëgëral mu dund ba doomam ji ñu koy muur muy sëy alors ndax dina évident mu méttee a gën a a yenn accusation yi nga xam ne léeg-léeg ñu ngi ko jëmale ci mais yow moom congaan xam nga si dara nag yow xam nga ni man moom miin naa <laughs> man miin naa coow miin naa su ma ko tàmmul ba heure bii dootuma ko tàmm amul lu ñu ma waxalul ci réew mi amul lu ma wàññi su ma yokkul wàññiwu ma dara maa koy gérer sama njaboot a ngi koy gérer maa ngi koy supporté sama njaboot a ngi koy supporté surtout nag sama soxna man sama soxna moo ma gën a dëgër parce que lu ne lay jot yenn saa yi sax jigéen message ko ni ko man damay génn ak sa jëkkër lépp pour perturber ko ci sëyam façon lu ne lay dund amul lu mu dégg ci àddina bi day jël oto di dem dégg ñuy wax ci man wala yenn saa yi mu dem ca salon ba dégg façon yu bëree baree baree baree bëri mais daf koy doo ko xam ci moom man tey su ma amoon koo xam ne lu mu dégg am problème mais man rek mën naa am problème mais ni ma ñàkkee dund problème moom moo ma raw fexe na nag ba xajalul kenn sama digganteeg moom li ma gën a neex ci moom nag mooy toog gi mu toog ci sama wetu yaay saa yu ma ñëwee sama yaay laay fekk mu toog ak moom te loolu yombul mënoon naa ñëw di xeex sama yaay mënoon naa ñëw ñàkk respecté sama yaay sama yaay da koy gërëm bay jooy dafa am taxawaay billaahi wal kitaab bu doon tey bis la buñ ko war a gërëmee ma ni gërëm naa ko gërëm naa ko ci biir gërëm naa ko ci biti alors yow Sass bala maa xam nañ ko complicité bi wane na ko présence aussi maa ngi nii bi ñu ne dafa am lu dafa heures la 15 heures la war pare midi plus tey yéen a gis affiche bi mu invité Eva Seck dafa maa woo démb dama oustaz nu may def sama émission bi nag ma ñëw ci ma ne ko déedéet Pape da ngay dem defi sa émission ba pare parce que Midi Plus dafa bari ay sponsor te sponsor yi bëgguñu ñu naan émission bi amul wala dañ ko rédiviser man maa ko jox ndigal ni ko demal defi say émission ba pare du féex saa yu la ko sa jot na nga ñëw loolu rek la moo tax bu man maa ko jox ndigal ni ko demal defi émission soo paree soo féexee nga ñëw soo féexul tam nga toog ñi ñëw représenté nañ la Birane Ndour fu mu ñëw keneen ku nekk TFM boo ñëwul yóbbaale na la géew Bouba Ndour fu mu ñëw ku ñëwul géew yóbbaale na la Maaraaje Ba oustaz Assane Seck oustaz Pape Ane madame Ndiaye ñoom ñëpp ñëw ah Anne Émilie Aïssata ñoom ñëpp ñu ñëw wax dëgg yàlla te ñooñu nag ñooy kàngami TFM dëgg yàlla pap bu ñëwul tam am na ngant rawatina nag ma jox ko digal ni ko demal defi say émission ba pare soo paree nga ñëw. alors mu bari ay gëm ne rek ñoom li ñu li ñu gis rek lañ seede xam nga wa maa shahidnaa illaa bimaa alimnaa nit du seede lu xamul li ma leen wan loolu la ñu xam la waykatu arab ba waxoon ni su may sukkandiku damay sukkandiku ci li nga jëflanteeg man mais du ma sukkandiku ci li nit ñi di wax ci yow. loolu rek la li ñu wax dañoo sukkandiku ci sama jëflante ak ñoom même bu ma amoon lu ñaaw nëbb naa leen ko bay jëflante ak ñoom lu rafet lu rafet loolu moom lañ xam loolu lañ wax. alors courage bi ngay renforcer à chaque fois wala nga koy renouveler ci multiplice ànd ak ni léeg-léeg critique dinay faral di am ñu naan façon bi ñu koy defee euh, dafa comique de trop loolu moom yaa Oustaz si mën a jàngal pour Sénégal yi xëy a mën a comprendre xam nga di wax ak koo xam ne li nga koy wax changé wul ci moom dara yàq sa wax man sama méttitu émission dara du ci changé waxtaan jàngale génne xam-xam du metti du diis boo ko seetaanee vendredi da ngay yàkkamti vendredi jot pour nga jàppaat ko parce que amoo pression man néewuma fi di lakk nit ñi lekkuma fi di yóbbu nit ñi safara néewuma fi di ko diisal damay wàccee niveau bi ba yow mi koy seetaan da ngay yàkkamti àjjuma jot pour nga jàng yenn saa yi ma wax dara Pape Cheikh reetaan nga ne ah kon lii nii la demee ci l'islam man xaw ma ko woon façon boobu la rek xam ni sénégalais yi boo leen di jàngal da ngay wàccee niveau bi te heure boo wàccee niveau bi nag ci ngay ëpp ay vie ci lañ lay gën a seetaan mais boo fi nekkoon day naan yàlla boulangerie la yor dalay saaf dalay boxam dalay lakk yàlla dafa mën a lakkaate yàlla dana leen lakk ëllëg yéen ñëpp loxo nit ñi ñoom seen commande télé moom ñoo ko moom boo leen convaincre duñ la seetaan waaye saa yoo leen convaincre rek ñu seetaan di la jaajëfalaat di jërëjëf Thiongaan maa ngi gërëm site internet yëpp di leen ñaanal yàlla yàlla leen yàlla def ay télé yu mag yàlla ngeen réussir ci seen liggéey tey bari na ku nekk Amérique wala mu nekk France wala mu nekk Belgique bëggoon a ñëw ci ngénteel yi ñëwul waaye yàlla ak site internet yi tax na fam fam tëdd lay tëdd di seetaan lépp lu am ci ngénteel yi ñu gërëm leen gërëm soppe yi fi teew yëpp oustaz Assane Seck mi ngi nii toog oustaz Mouhamed mbay mi ngi fi Mouhamed Mbaye Jamil moom itam mi ngi fi bu seen TV ñu gërëm ko gërëm xarit yëpp laa bi Abdoul Aziz sunu xarit la moom itam teew na ñu gërëm soppe yëpp gërëm am di jàmb yëpp Mouhamed Sall sunu xarit la ñoo defandoo lépp waaye bis bi coono bi mu ci daj samay mbokk sax dajuñu ko démb mi ngi fi ba deux heures du matin bi ma ñëwee fi laa ko fekk lépp luy organisation moo ko yor xalaat bu mu am ci bis bi wax na ko taxawaay bu rafet la ci def ku mel noonu ñu gërëm ko gërëm suñuy waajur gërëm soppe yëpp gërëm xarit yëpp gërëm am di jàmm yëpp ku fi teew yàlla faj say aajo ci daraja yonente bi sallallahu alayhi wa